faslun li ab dogla fi faraidi salati ci faratay julli faratay julli fukk juroom la am am ñu koy wañi nak ba yobbu ko ci fukk juroom ben yéene yéene ju ràññi ko bu de tisbar nga yéene tisbar bu de takusan nga yéene takkusaan bu de suba nga yene suba yene nak moy nga dog ci xol bi rek ci def ko bo dogo rek tam nga yéene du aajo nga diko wax ci sa lu may na nga wax ci sa ngay jax-jaxi ba yene nga am yene wo kon bu dee ci yoonu mali moom bu jeex jaxi na reyam ñu sopp nga wax kuy soo lame ñaar mooy allah akbar ji nga xam ne moom nga njëkk wax ci julli gi te war a susaloo yéene ji nga war a lëkkaloo lëkkaloo mooy gi rek booy yéene daal di kaabar fasaasa loolu farata la muy ñaar ñetteelu farata yi mooy taxawaayu armal bi ba ngay wax allah akbar boobu di farata nga taxaw boole ca loolu farata la ñeenteel bi nag mooy jàng fatiha ci bu fekkee ne yow yow rek yaa ànd di julli wala ngay jiite jàng faatixa farata lay doon buñ jàng faatixa farata la ba mooy ñeenteelu farata yi ba ngay jàng faatixa nga taxaw boole ci ndegam mën ngaa taxaw taxawaay boobee ngay taxaw di jàng faatixa farata la kon mooy juróomeel ba rukkoo farata la boo xasee sëgg ba say loxo jege say bëti boom rek rukkoo am na waaye nag nga jàpp ci say woom bu dëgër nag lañ gën a taamu rukkoo boobu farata la muy juróom benn siggee ci rukkoo ba nag mooy juróom ñaareel bi noonu nga sëgg ci rukkoo boo jàllee rek jàll te siggi woo da nga bàyyi farata sujjóot farata la nga siggee ca sujjóot ba ba tey farata ndax benn sujjóot lu mu yàgg-yàgg du mën a wecc ñaar te it boo xawee siggi tuuti daal di bàyyi sëggaataat du baax day aajowoo nga siggi mel ne ba nga sëggagul sujjóot waaw siggi boobu sujjóot day aajo nga siggi ba mel ne ba nga sëgagul sujjoot loolu farata la skill bi mooy fekkee bëgg ngaa ànd ak kee ci julli mu jiite la ca ba ngay li nga yéene muy sa iliman xam ne sa julli mi aju julleem su baaxee nga baaxle su yàqule nga yàqule nit moom bu ànd sagoom daanaka lu muy def rek dana ca ànd ak yéene waaye dañuy bañ mu tàmbali woon jullit boppam rek gannaaw ba nag keneen ñëw di julli ci wetam mu daal di rek daal di ànd ak moom ca ne moom bu ilimaan taxawee ci kanam nga taxaw ci kanam rek dal nga yéene roy ci moom ba tey boo ko féetee ndey joor mu féete la càmmooñ nga xaw a làng moom rek dal nga yéene roy ci moom kon daal takk-takk bi mooy rek boo bëggee kenn jiite la ca ba ngay tàmbali sa julli lay doon waaye nag doo tàmbali ba noppi wëlbatiku nag noonee nga tàmbali woon nga bëgg a rek ànd keneen ci julli ca na nga tàmbalee woon fukkeel ak benneel ci farata yi moy, nga toftay ben rak na tegal ba alaykum bu ci julli gi nga ben rak boko de set yene yéene kabar armal ño jitu jang fatiha ak tahawayam top ca ruko ak sigi top ca ba ci sujjoot ak sigi non la ben rak tegalo nga tegalé ko non nak ba alaykum bu ci farata la boko tegalé wul non nit ngay julli ñi ko jàng fatiha te kabaru armal wala ngay julli njëkkaru ko te jàngoo fatiha kon du baax dal gi mooy foo toll ne tekk ba cër yi dal loo yàkkamti yàkkamti dal na nga ne tekk ba cër yi dal bu fekkee nga gaawantu ba tekk googu amut julli gi du baax fa bëgg wax ne al i'tidal mooy fukkeelu farata ak ñetteel i'tidal mooy boo rukkooyee ba siggi nga delluwaat bu mel na nga meloon ba nga sëggagutoon boo sujjootee ba siggi noonu ngay delluwaat ba siggi ba toogaat mel na nga meloon kon boo bàyyikoo ci rukkoo boo bàyyikoo ci mel na nga meloon waaw kay loolu mooy fukkeelu ñetteel wax nga asalaamaaleykum nag mooy fukkeel ñeenteel wax gi asalaamaaleykum mooy fukkeel beeg ñeenteel dir ba ngay wax asalaamaaleykum nga toog kon toog ba ngay toog wax asalaamaaleykum mooy fukkeel beeg juróomeel xam ne boo yàkkamti woon ba ba ngay wax asalaamaaleykum na ngaa jóg di dem kon du baax sunnay julli fukk la ak juróom xam ngay bind xaalonk ak yaa waaw ci boo toppee ni nga xam ne moom la ko li ci borom xam-xam yi waxe liqaam min nañ ko mooy noonu ñu waxe allahu akbaru allahu akbaru ashhadu an ilaha illa ashhadu anna muhammadan rasulullahi hayya ala salaati hayya ala alfalaahi qad qaamati salaatu allahu ak allahu akbaru laa ilaha illa allahu loolu mooy liqaam sunna la saar wa nga xam ne moom ngay jàng ci gannaaw fatiha ci ràkk bu jëkk ak ràkkab ñaareel ci mboolem julli farata yi saar woowu sunna la bu fekkee matut saar itam baax na saar wi day jàng ko day sunna waaye taxawaay ba ngay taxaw di ko jàng itam day sunna dafa am sunna yu feddliku yu dëgër am yu feddlikuwut li xam nag sunna bu dëgër la boo xam ne nee nañu sax moo gën a dëgër nodd ndax moo gën a sës ci julli gi waaye moom nag nekkul ci biir julli gi saar yi nag moom sunna bu feddliku la te mi ngi nekk ci biir julli gi biral muy wax ca kaw ba nga xamee ne lu gàtt gàtt nga di ko dégg ku sës ci yow di ko dégg loolu mooy biral loolu nag fu ko digal nga def ko fa sunna la fañ la ko digale nag mooy ñaar rakk ay suba ak ñaar rakk njëkk ci timis ak ñaar rakk njëkk ci gee ak ñaar rak ay ajuma wax ci suuf ci fañ la ko digale moom itam sunna la mooy rek tey suufi ba nga xam ne sa nopp sax du ko dégg waaye soo làmmiñ nag ngay wax yi am na nag ñu taamu nga di ko wax ba say nopp di ko dégg allah akbar yi ngay wax julli gi yëpp sunna lañ ba mu des bu njëkk bi bu njëkk bi moom farata la julli gu bokk suba rek dana am lu néew néew ñaari taaya suba nag moom bu fekkee kenn rawule ci lay am waaye jàppal ne taaya bu ci nekk sunna la ab jataayam ba tey sunna la nga xam ne kon ñaari taaya yi yéen ci sunna moo cay daje buñ nee taaya ñaareel ba mooy taaya ba nga nar a sëlmal rek lañ jublu ci taaya bu ñaareel ndax julli mën naa am yetti taaya ba ci ñeent waaye taaya ba nga xam nar laa jógaat daal moom boo taaya ba noppi nga julli ci yonante bi door a sëlmal la foo toll ci gi ne fa tekk ba la gannaaw ba nga ne tekk ba cër yi dal nag loo ca ko ca kemu sëlmal ba mooy dañu waxoon ne asalaamaaleykum wax ga farata la diir ba nga koy wax itam farata la muy jotaayu sëlmal wax la ko jiitu nag muy jotaayu julli ci yonante bi moom ngay wàññiwaale foofu ndax leen lu nekk ab jotaayam da koy topp bi ñu taaya la ab day nekk sunna bu ñu julli ci yonante bi sunna la ab jotaayam day nekk sunna bu ñu ñaan lu sopp la ñaan bala ngaa sëlmal ab jotaayam day nekk lu ñu sopp bu ñu wax asalaamaaleykum farata la ba tey diir ba ngay wax asalaamaaleykum farata la. sëlmal bi nga xam ne moom ngay njëkk a wax mu génn la ci julli gi te sax bu dee yow moom dong ngay wax boo dee jiit itam moom rek ngay wax sëlmal boobu nga wax ko ci kaw sunna la maanaam delloo sëlmal sa waaye moom nu koy wax ndànk rek delloo sëlmal googu sunna la ba bu fekkee am ku la féete woon càmmooñ te na ngeen woon di julli te am na julli ko lu matub rakk ba ko wax ko ndànk asalaamaaleykum sunna la yooyu ñaari sëlmal muy bi ngay delloo élimaan ak ma ngay delloo ko nekk càmmoñ moom dis ko yëkkat dañ koy wax ci suuf rek xerawlu mooy déglu ne pat bu dee ci yoonu Maalik dañuy jàpp de bu ilimaan jàngee rek jàngal na la xam ne kon bu ilimaan dee biril nga ba doo ko dégg baa dangaa tax bu ko dégg itam day sunna mooy nga ne pat bañ a wax dara bu ci suuf nag ñu sopp wax ci suuf ndax sam xel bañ nekk ci leneen boo dee ci li wala ngay jiite taragal ne bala nga sëlmal am ko rombu fa sa kanam kon sunna la nga wut satif satif moy la ngay sam ba nga teural ko fi sa kanam loolu numu lu mu sew sew na dijje ne na dijje ne aw yatu wu dijje lu mu gàtt gàtt na ne xassab te bu tak sobe bu mu nekk lu rafet lol ba mu ñaaw lol ba sam xel di ci jaxi jaxi bu nekk lu to ko dal ne tek satir mom bala nekk sunna rek nga ragal ne xëy na bala ngaa sëlmal am ku romb fa sa kanam waaye bu fekkee fa ngay jule jàppoo ne kenn dana fa romb du aajowoo ngay wut satir te it duñu sart ne faaw yaa koy wut samp ko mbaa nga tëral ko man ngaa fekk rek garab gu taxaw nga tolloog moom def ko sa satir mbaa bu dee jàkk ji nga dem ba tolloog poto ba def ko satir satir moom kenn kuy julli wala ilimaan bay jiite te ragal ne balaa sëlmal ñu romb ci kanamam rek ñooy wut satir muy sunna waaye maamoom mi nga xam ne am na ku koy jiite ka koy jiite rek doy na ko satir kookee di jiite nag bu aajo wa wut satir moom moo koy wut